تاكل سبعة للماي اما هم دول خدم ترل كي عارضي قاعدة موي بكر واي جاس دي خمس بس لوليم سريم توما دي عند النوم لك بنيو تبتا بي مام شيخ رايما فال باب المريد والمريد دو تدو سريم توما تدو مام شيخ رايما فال نكو مبكي دنگ ماي باي رك ما دف لي ماي دف bato bi تاك tàkk bañ di la yóbbu xoolal damay def li may def rek mbàcc bàyyi ma rek bato mu ne ko Cheikh Ibra Fall bayil bay man xam naa ne man nga ko waaye jarul def bay bay damay liggéey rek su ma ñibbisee ñëpp añe su ma ñibbisee rek ñëpp añe bay bi damay liggéeyi liggéey nag yow yow dong ànd ak taalibe ànd ak kenn amoo sa njaboot te li gën a métti mooy tukki waaye tukki moo xam ne nag yow rek xam nga wóor na ne yow Rasulullah ngay liggéeyee dama ne ñoo ngi ci bato نعلمني الرحمن في السفينة بأنني خادم المدينة باكو سوبا سيري توبا أنا ديف رواية علمني الرحمن سلو برم خما نما بأنني خادم المدينة ما عندي لجيل برم مدينة منورة من رسول الله كل liggéey رسول الله nga toog ci bato دي بارو goo ñu لكو كنت ko kon fi bëri na lool mënoo ko wax tànk sa dund parce que moom mbiram dafa riche dafa yaatu waaye julli jot rek ah waxtu wi jot na du ma waxtu taxaw ci waxtu wi génne der bi sànni teg di julli di kàbbar di julli der biy dem tolloog bato bi bato biy daw ak xel yu der biy daw tolloog bato bi bu neexoon bato bi mën naa romb jiitu der bi wala boo ger bi jiitu danaa tolloo mu julli ma noppi mag nee na ma keroog ba mu sëppee jéem suuf si Touba lañ ko indi mu teg ci jéem moom sëñ Touba xaat ba mu dóoree jëmi ci suuf rek suuf si Touba lañ ko xëccal mu teg ci jéem bi billaahi julli gi jeex nga lem sa der delluwaat ci batu batu bi dem waa ji ne mbàkk yaa gore bu la neexoon nga jaaree fi teggee dem soo leen te kenn du la toog bu la neexoon nga ñibbi ci as ku koy topp waaye moom ma ne waaye moom xam ne day liggéeyal rasulillahi man ci yoon wi waaye war ay xar baax dem ji nag gis nga baaru bu ne fukki baaru ak juróom-benn yi ñuy wéyee muy xarut ñu jàng kër yëpp baaru bu ne Sëriñ Tuubaa wéy na ci daaj yi ngay gis ñu daaj Mu Tuubaa baaru maa yombe la daan boor di ko wéyee atel karimu أنا الخديم ترى القديم بك سماعي دي برضه وي بسيت انتوا بقى بقى كل ويلش بسم الإله ينمو اللهاي بلا مناي ولا ته تدفق لب رسول الله أجيال ركلته بولو تتكلم لو لب خمنكو كون كنت كني سلط بيو في جيه ويادو فالول نيبسي ne man kat maa ngi santale waaye sant leen ma sama borom te kat ci tukki bi dem bi xarit ma wax ci la sant yàlla kuy tukki nag di sant yàlla ne alhamdulilahi maa ngi tukki ah sant naa yàlla kon kat su ma ñëwee bés bésub cant lay doon wóor na nga fi nga jëm ñeme nga fa am déet wóor na yow fi nga jëm ñeme nga fa loolu nag mooy yoonu tukki bi mooy yoonu géej gi gannaara yi noonu wax sëriñ bi wax na ko sëriñ Cheikh wax na ko léegi naar daa yàpp nit ku ñuul waaye Sëriñ Tuubaa dafa semmal ñun ñuul ñi wax naa la ko barki démb rek dem naa gànnaar ci benn wasi sëñ bi war a ñëw Sénégal ba bëgg a def sama walis teg bëgg a fay paas ma wéeru ci oto bi woy woyu Sëriñ Tuubaa billaahi ak waxtu yi mm. naar bi ne man xaala haala ku wax lii man ko Cheikh Ahmadou Khadim al Mbacke mu ne wallahi anta laa tux laa tuxallis yow doo fay doo fay paas te wasi mooy xaaka wasiyati yàq يا مريد تريد بها جملة ما تريد فقدم العلم على كل عمل إذا أردت أن تغوص بالعمل واعلم بأن ما تفاوت البراء بالعلم والدين يكون فاصبرا وبهما يفضل من قد فضلا لا بتفاخر بقوم فضلا نعم والله من قال هذا كوهلي من أحمد الخديم بك من لا لا تخلص لا فاسو لا فاس كرو فاسو ci wuyu sëriñ bi laa dëgg ba naar yi jox ma ni ma yow doo paas noosu ak noosu sere Mauritanie kenn paasu te loolu yàgg na de bu amee événement Mauritanie xewagul ak yu bëree bëri parce que bay itam boo ko waxee ku dégg arab da koy jaaxal dañuy yëfa ne ku ñuul mënul wax loolu loolu lépp may di koy yàlla may moom la xam nga mbokk bi wax na wax boo xam ne sëñ Diop wax na wax boo xam ne boo xamul da lay jaaxal wax sëñ bi bind ne nu ba watu woo xam la balaa yaa xadin jala fi tiin yox sëlu du doon sëñ fi wax mbàcc daa war a leer daa war a leer yi xam nañ li may wax